Monsieur le Président de l'Alliance pour la République mbooloo mi bisu tey bi mën nañu tàccu mais d'abord dafa jar ñu sant yàlla ñu ànd ak jëmm ji di président Macky muy taxaw di ut réew mi am jaar-jaar ci wàllu histoire politique de ce pays ku kenn mësul am ñu ànd ak moom ci diaspora dem ak moom dans les village dans les villes képp ku bokkoon APR taxaw sa ginnaaw Macky sagal sagal nga ko ci ay biir mbokkam sagal nga ko ci biir réew mi ñi fi toog ku la fi yoral bor amu fi ndapp lépp liñ ko waroon def def nga ko amu fi laa la wax ci biir réew mi monsieur le président Macky Sall gërëm la sant la def ñu war ndax dañ ñu encadré jàppale ñu yërëm ñu xelal ñu former ñu bu doon ci mbirum galaas yaay ndox mi yaay frigo bi ba ñu congelé mën a wax ak askan bi lépp yow la ginnaaw yàlla gërëm la rek yow bu nit ki di wax ak yow xolam day oyof ndax ni nga amee respect ci doomu aadama ndax ni nga amee yëg ci doomu aadama yàlla tamit kàttanal la may la mbir bu raar mooy lan soxna su baax jëmm ji yërëm na néew di doole yi première dame bi daan sol ay bot dugg ci biiru ndoxu salte yi voilà Marème Faye Sall première dame boo xam na ne avion bi fi jógee dem Tunisie yóbbaale na ay malaat te boole ci wax vietnam boo xam ne ne dara feesul sa bët lu dul sa borom kër jaamu yàlla tere say waajur kon nag ànd ak yéen ci wàllu parcours politique bu du woon li ñu taxaw nii ak fi ñu jëm nii yow yaa soxla dañuy dem tëdd nelaw ndax yóbbu nga ñu niveau boo xam ne ne beneen affaire la Farba Ngom Farba Ngom Macky Sall la du kenn lépp yow la kon dama lay gërëm dama lay sant loo wax loo waa loolu laa wax loo waxul waxuma ko nee nga ci li nga xam ne yaa ko moomoon renoncé nga ak loolu xol bu rafet boobu ak bëgg réew mi toll la foofu kan moo ko mën a def ko dul yow renoncer à candidature d'être président de la République du Sénégal kon nag nee yow ak membre de la coalition de Benno Bokk Yaakaar ñu ci gërëm le président Moustapha Niass la présidente Aminata Mbengue Ndiaye l'ensemble des leaders de Benno ñëpp ak les responsables de l'APR qui sont la que coordonne Mahmoud Saleh au nom des organes ak l'ensemble des responsables nee nga le candidat il s'appelle Amadou Ba kon candidat bi Amadou Ba la monsieur le président ñu ngi ci kanam ñu ngi ci gannaaw ñu ngi ci el yi dinañu dina ñu wàcc fi ñu daan jaar ba door leen daal leen ci suuf dinañu ànd ak yow Amadou Ba falu au premier tour le soir du 25 février bu ci àllande gërëm nañ la sant nañ la jëmm ji tamit xam naa ne Amadou loo góor góorgóorlu woon gën a góorlu ndax lii kii li muy def il faut nga am xol de pour mun ko def wala boog. il faut nga am xol pour mun ko def loo góorgóorlu woon rek te tamit alhaji abdul aziz si al amin yàlla na ko yàlla yërëm di wax waxu histoire ba dugal ci mbir nee na nit am na lum lay defal am na fay mais am na ay mbir su la ko nit defee noo ko fay ba ilaa yow mi diin jëmm ji lim la defal jéggi na dayoo de wala boog renoncer à droit d'être candidat waxtaan ak les gens de la coalition yaay candidat loo góorgóorlu woon ak loo taxawoon gën a góorgóorlu nga gën a taxaw ñun nag produit lañu boo xam ne ne dañoo jël suñu deret préciser ci Macky Sall lu Macky wax loolu la ñu wax duñu saboter ñu ngi ci sa kanam amadu ñu ngi ci sa ginnaaw ndax Macky Sall a dit oui au candidat de Amadou Ba mais nag man it dama koy gërëm au moment te il directeur général des impôts et des domaines dama ko daan fréquenté guddi ak bëccëg di dem ci moom ñu demoon ba nar ko relever ndax ñu naan ba Ngom bu Macky Sall fii lay ñëw di guddi ak bëccëg te nag du dara loo xam ne sekk nañ ko ci wàllu àdduna loo xam si diggante ak Macky Sall la amul de amul loolu daa war a leer dara kon nag jëmm jooju xam nga seen diggante man mi nga xam ne dama la daan fréquenté samay mbiru bopp la mais xam nga moom xam na xam naa yàlla xam na dara mu si fi jaar ci loo xam ne ne seen diggante loo xam ne bu ma tooxee ma wax ko ci amut loolu leeral ko aussi dafa am solo mais nag ñii les gens de l'Alliance pour la République Amadou ils ont toujours besoin soxla nañu nga gën leen rassurer wu de leur engagement dafa solo de leur engagement parce que ñii xamuñu woon dugguluñu woon ci seen programme jëfuñu ko woon xalaatuwuñ ko woon ku dul Macky Sall kese amul un amul deux léegi nag bu président ne demul jël mbir mi ak l'ensemble de les leaders ne Amadou Ba la ah dañuy dem ama ànd ak yow monsieur le président ma élire Amadou Ba au premier tour te Matam incha Matam monsieur le président waaw slogan slogan les gens qui crient pour Amadouba. C'est important de crier pour Amadouba, de remercier pour Macky Sall. kon nag Matam incha allah ñu ngi lay dalal monsieur le candidat on avait dit Macky Sall Matam et son titre foncier dañoo jël titre foncier bi amul hypothèque dinañu jël état de droit réel bi. jox ko Macky Sall mu jox la ko pour nga xam ne ne le titre foncier il est toujours titre foncier merci beaucoup monsieur le président Macky Sall. merci beaucoup. merci beaucoup. merci beaucoup monsieur le président. Merci beaucoup.